Alaaji kàddu gàngoog jërëjëf ajaratu Betty Mbow ñu am mbégte di am kontaan di del seeg yéen ci seen rubrique bu mag bi nga xam ne bii moom la ñuy wax pajum cosaan nga xam ni politiciens yi yaakaar nañ ni Cheikh Bara njaay ma nga fële rek ku ne di bëgg a ñolti ñolti defe ni mën ngaa coppati li nga xam ne mooy rubrique bi ñëw di toog am na ko ko feex en direct muy Adama Fall. fii la taxaw naan mën naa ñëw mën. na am na ku mu wax. am na ñeneen ñu koy wax ak ah. ñeneen. billaay am na ñu lay woo. pour jël kii pour ñëw pour toog. waaye bu yaboo ñu xam ni nañu toog fa ñu toog kenn woowu leen fi. du seen turbine. billaay billaay léegi man. ñu bari ñu ngi koy ah mm. woo nañ. Mm. très bien nañ ñu dimbali te wuti feneen lam bi leen feneen te xam ni fii nooyul ñu ciy ànd ak sëñ bàcc mu seex Baara Jaay borom def gis. sëñ bàcc ñi ngi lay nuyu aousubillahi min alsheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim alhamdulilahi rabilalamin tubu ilallaahi wahtadu mulaatafatan taxus xulubukumoo xaw mi mukaasafatan fa kullu naa fal yatub musaadafatan astaxfirullahi adhaafan mudaaxafatan mimma sakart min ajnaasi wal xisami lamma xata daawatari min bahdi ma kunt saa faqrin wa saa dararin xamdan yukaafi masjidan min xofil usri summa salaatu alal muxtaari min mudari xayril bariyati min mubaakin wa mubtasimi allahuma maxfiratuka aw saxu min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu saa njóogu maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifatul aam li tariqatil muridiya di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di nuyu mboolem xalif généraux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi yëpp di nuyu bokk yi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarloo ak ñun di ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew jërëjëf sëñ bàcc mu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah tey dinañ waxtaanee ay ponk yu baree bari lu ci mel ni lépp lu jëm ci wàllu rab parce que ginnaaw bi nga xam ne Cheikh Bara Ndiaye euh, wuute na ko bi yoon résultat ya di nga ñu wax ni nga xam noonu la defee ak tamit client ya naka la ñuy ñëwee gën nëgëni ci li nga xam ne moom la ñuy wax lu jëm ci wàllu rab yooyu ndax faj ma tamit ndax gaaw na wala yeex na yooyu incha allah dinañ ci ñëw dinañ ñëw tamit ci point yi nga xamante ni bi jëm na ci wàllu jaaro ak càngat waaw yi nga xamante ni bi macha allah yi nga xamante ni bi euh, càngatu ubbiku yeeg yooyu nañ ci ñëw ak jaaro yi waaye dafa mel ni ndomba yi eh, bii passé bi nga xamante ni bii tamit ñëwaat nañ ci parce que am na ñoo xam ne tamit loolu la ñuy xaar ci émission bi donte actualité neex na trop waaye am na ñoo xam ne it dañuy xaar eh, ci li nga xam ni mooy pajum cosaan beeg yooyu dafa mel ni ndomba yi tamit nit ñi daw si nañ wutal si ko muy lépp loo xamante bi jëm na ci wàllu tulak lu ni mel nga xamante ni bii da ngeen koy liggéey lu jëm nag ca ja feebaru ay hémorroïdes ak ndoxum siteeg yooyu tamit daan ca boros ñëw ca waaye dinañ ñëw tamit nga wax ñu ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax euh, Cheikh Bara Ndiaye borom def gis gis nañ fan yi passé benn point de presse am boo xamante ni bii waxoon ngeen lu jëm ci wàllu mbiri ñu wax ci état de santé am jafe-jafe yi nga xamante ni bii am na ko coono yi nga xamante ni bi fi mu toll ni mu ngi koy dund foofa nga xamante ni fii fa ne nga xamante ni bi waxoon nañ ni situation ba critique na fan la situation bi toll loolu di nga ci ñëw incha allah mais sëñ Baaj euh, dañuy démarrer li nga xamante ni bii moom la ñuy wax euh, rab yi dafa mel ni rab yi bii semaine ñu génn moom yéen donc ak rab ya Cheikh Bara moom nekku fa woon rab ya nu ngeen def ak rab yi ndax rab ya bi yoon nit ñi ñëw am nañ satisfaction ca rab ya wa ilaa nan la dem ñi nga xamante ne bi ñëwoon nañ ak xam na tamit am na ñoo xam ne peut-être dem nañ ba egsi xalaatoon ni Cheikh Bara lañ fay fekk fekkuñu ko fa bañ ñëwee découragé am na wala amut ak tamit naka ngeen def ak rab yi jërëjëf euh, Sa Ndiogou ci laaj bu am solo boobu nga laaj. Mm. Euh, pajum rab. naka jekk sëñ Baara nekk fii ak mu ñàkk fay nekk ñun ñoo koy def. yéen a koy def dafi daan nekk sax ñu di ko def. dëgg la. Euh, kon nag euh, rawatina jamono ji nga xam ne nekku fi. Mm-hmm. rab moom nañ ko daan faje mm-hmm. ba tey noonu lañ koy faje mooy faj ko ci benn bis. faj ko ci bis bi. mu jeex ci bis bi. Mm-hmm. du ngeen faj rab mu wala ki yëpp da loolu day am ah. waaw maanaam di nga faj koo xamante nii. waaw ci bis bi nga koy faje waaw rab bi moom day dem. day dem. waaye mën naa dem ba këram. Mhm. mu songaat ko. mu songaat waaye kooku dee day siwaat mhm. te bu ñëwee dañ koy faj te du ci fajaat dara. ah te du ci fajaat dara. lu waaw am na ci ñoo xam ne seen rab dëgër na bopp. Hmm. waaye bu fekkee ne téeméer la. waaw juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari moom. waaw seen rab dañ koy faj ci bis bi. te dootut ñëw waaw kër ga moom. Hmm. ña fay faju si rab. waaw xam nañ ko bu baax a baax a baax. Hmm. Euh, fajum rab du ay caaxaan. du caaxaan ndax lay tax fajum rab du ay caaxaan. ki ngay faj rab. Mm-hmm. su fekkee ne yow mi koy faj sa bopp oyof na wala sa bopp njaboot oyof mm-hmm. mën naa retrouver wu sax mm-hmm. dal ci sa kaw dal sa kaw waaye yàlla dogal na ñu aar sunu bopp aar sunu njaboot ba nga xam ne kii mënees na koo tàggale ak rabam ba pare te bu jëlee jóge mën a dem ci ay soxlaam te du dal sunu njaboot loolu ñu ngi koy def at kii altine ju jot la ñu koy def lii tax nag ñi koy def altine ba altine waaw pajum rab moo yombut te pajam rab it doonu koo xam ne day jël si ay garab lu ci mel ni hémorroïde rek. waaw waaye dafa laaj temps. temps kii faju rab moom. waaw faw ñu xam turam. ak turu yaayam. Mm-hmm. seet ba xam rab moo ko jàpp. waaw boo ko rab jàppee lan la jote ak moom. Mm-hmm. ak it lan lay laaj ngir mën a taxali ko ak moom. loolu rab yi moo la koy wax. d'accord. faw mu ne la maanaam sarax sàngam. Mm-hmm. moom ngay génn ma mën koo bàyyi. rab la koy wax te it liy taxit du ñu nangu. Mhm. nit ki ñu naan ko saraxeel nangam boo demee. waaw loolu ñenn ñi ñenn ñi dañ ciy waru maanaam des ñu ciy waru ndax léeg-léeg nga am ci nit confiance ne ko boo demee na nga génne nangam nga saraxe ko. waaw bu ko defut. Mhm. yow la yow coono bi ci yow lay dellusiwaat. waaw ah. day ñëwaat ci yow xamal ne la maanaam diw génnewut nangam saraxewut nangam. Mhm. rabbee la koy wax. moo tax bien sûr mm. loolu da koy gis bu baax a baax xam nga nit bu tëddee. kon maanaam rab bi waxtaan la. wooy seq ak moom pour mu ba. wala gis nga rab xam nga lan la sànjoo ko hmm. nit kese kese kese kese waaw bu tëddoon di nelaw sax sunu suñu borom da koy wan ay mbir rawatina nit koo xamante ni day yëngu ci wàllu lasraar wala wàllum faj hmm. ki mel ni xam nga rab moom tur wolof la waaw waaye jinne rek ci lay delloo d'accord waaw muy àndandoo yi ngay dégg yooyu yëpp rek lay hmm. dellu delluwaay bu mooy jinne wolof moo koy tuddee tur wu nekk nit ki rab jàpp muy wax waaw jëmmi nit ki ngay gis làmmiñam ngay gis mu juga ko daanu mm-hmm. waaye amaana wax jooju maanaam euh, rab bi mooy jaar ci làmmiñam di wax li muy wax yooyu yëpp du ay waxam boo ko fajoon danaan la waa lii mm-hmm. ndaka la yaalte mm-hmm. bii di jàll waaw faj nañ fi koo xamante ni bi mu paree dane waa lan moom ma indi fii parce que xamutoon fu moom fu mu nekk xamul fu mu ne loolu loolu day am waaw loolu day am bu baax a baax boo ko defee nag dañuy sartante ak yow li ñu lay fajale rab ak sarax bi yëpp dañ la koy wax ñun ñoo koy defal sunu bopp yéen a koy def waaw mën nga li liñ la wax nag. ne la ko. waaw boo ko indee ñoo koy defal suñu bopp. bu fekkee ne loo mënul indi la. loolu itam ñun des na ko fàggu ba defal ko suñu bopp. Mm-hmm. loolu nag ñi koy gën a waxal mooy ñi nekk bitim réew. te nga xamante nii dañuy woote rek wax ne dañoo amee euh, rab. bu ñu ko seetee ba xam ne rab moo leen jàpp. ñu seet ko ba xam ne machine ñoom si ñi nekk bitim réew seen rab yi maam yee leen jàpp wala rabu tubaab. waa xam nga rab moom. Mm-hmm. nit mën na koo donne ci famille. ci famille waaye nit it nag. Mm-hmm. mën naa doxantu dem tuur ndox ci barab boo xam ne mm-hmm. rab mën na ko faa songee nit mën naa dugg ci wanag ndox xam nga wanag lu ci nekk booy dugg ci wanag dafa am loo war di wax waaw waaw nit mën naa dugg ci wanag mm-hmm. rab songe ko fa ndax barab bi tuurukaayu ndox wala barab bi tuurukaayu dugub foofa rab dafay fréquenté ndax euh, rab yàlla da koo may waaw mën naa jullee waxtu juróom yépp ca màkkatal mu karam loolu jinne yàllaa ko may doon waaw barab bi nga jàpp ne barab bu néew la bu roqe la foofu fuy yaatu la ci moom ah. yàlla bind jinne noonu bind di noonu nga xamante ne bu njëkk sax daa leen gis ñu ñuy gis mm-hmm. waaw daa ñu leen ñu gis ñu ñu bu njëkk mm-hmm. daañu leen di gis ñu ñuy gis waaw waaye nag ci jamono yoon yonte yàlla Suleymaan waaw ñoom lañ ñaanoon Suleymaan ndax Suleymaan yàlla da ko mayoon nguur goo xam ne daa yilifoon lépp waaw ñoom ñoo ñaanoon Souleymane ngir mhm. ñu am kaaraange suñu diggante ak ñoom waaw nga xamante ni ñoom ñoo ñuy gis mais ñun dootuñu leen gis ndax ñu dañu leen daan final jamono boobu d'accord loolu rek la waaw macha allah am na solo euh, da nga am laaj ci wàllu rab bi dugg ci wanag mhm. euh, rab songee la fa te doo ko xam mhm. euh, damay dégg ñuy wax ni nit yi sangu sangu bu yàgg di yàgg ci cabinet en général moo xam gaanuwaay la walla sangukaay ma dégg ñu naan nit ki yàgg ci toilette baaxul loolu aussi xanaa moo koy waral ñu koy wax yàgg ci toilette baaxul mm. wax ci toilette it baaxul wax waaw yàgg ak wax ji baaxul mm. waaw lu yàgg ba ko yooyu yëpp mm. gis nga ndox maanaam sax bu ñu masaan daan euh, tàng ndox nii nit jiitu leen ci toilette di di tuur ndox dañ cee damm lu mel ni këriñ wala bant teg fa ci ndox mi waaw ndax su loolu mooy tax mu mën a aar ndox mi. ndox dara du dox digganteem ak borom mi. ko daan naa gis sax ñuy safara di ko ci fay. effectivement yooyu yëpp kaaraange la. Hmm. gis nga dafa am xeeti aada yoo xam ne. waaw l'islam ndax. Hmm. mu ñëwee dafa bokk moom penc mi. waaw masla ak moom ci loolu dàqu ko benn yoon xaraamut. d'accord tàngam ndox wala nekk ci wanag wi di fa wuyu téléphone. waaw wala nga fay wax wala nga fay yàgg genn yàggoor gi. Hmm. loolu baaxul te waxuma léegi yàgg gi sax baaxul waaye. Eh, gis nga nit. boo xooloon tey ji rab jinne mm-hmm. fi muy dëkk ak fa muy tuure ndox. man mm-hmm. nga koo natt ci juróomi téeméeri kilomètre dëkk waaye. Mm-hmm. jinne ci boppam. juróomi juróomi téeméeri kilomètre. da koy toll. moom jinne ci boppam waaw fi muy tuure ndox. ak fi muy fanaan diggante bi boo ko doon natt day toll juróomi téeméeri kilomètre da koy sori. da parce que loolu. Mm. day tax maanaam. kon jinne yi amuñu salle de bain xet gu naqari. dafay bokk ci liy tax a gàtt fanam. ndax yàlla sunu borom sa cër yii mu mu mu def xam nga nit. Hmm. làmmiñ moom benn la. te moo yëg lu neex moo yëg lu naqari. Hmm. lu ci nekk daa am ay ferñeentam. Hmm. bakkan biit mooy xam lu xet gu neex ak xet gu naqari. gis nga xet gu naqari baaxul ci doomu aadama. gis nga ñàkk toog ngii nga toog ni ñàkk wéeru. baaxul ci nit toog rek wéeru woo baaxul ci nit. jinne foo ko fekk day wéeru. te wéeru dafay guddal fan nit. Mm-hmm. wéeru toog wéeru mm-hmm. dafay guddal fan nit waaw yii yëpp boo ko nit ki xamee mm-hmm. day aar boo xoolee maam yi xoola fay li ñu daan dund ci ay at waaw dañoo xamoon aara yooyu daan ko def pourtant médecine moderne dafay wax nit ki wéeru bi mais toogal ba jub bañ a bañ bañ a wéeru pour sa colonne vertébrale waa gis nga médecine moderne moom bu dee ñun médecin tradipraticien yi ñu yëngoo waaw am nañu différence ak médecin bu tubaab bi. bu baax bu baax xëy na ñooñu ci seeni maanaam euh, euh, gëstu am na ci foofu woote nañ fa ak ñoom. waaye nag ñooñu itam. Mm-hmm. dañuy si war ci Sénégal ci sunuy mm-hmm. gàncax ci sunuy garab. Mm-hmm. jële fi sunuy gàncax demaat ba ci seen laboratoire. liggéey ko fa ba mel ñoom lañ koy sàkko ñu war ko fii ci suñu réew. di ñu ko jaay te fekk na amoon na ko. waaw waaw ndax néew na émorite tubaab di ko faj ba mu wér. waaw waaye ñun dañ koy faj ba mu wér te Sénégal gi lañ koy fajee. waaw ah, tubaab opéré la ci xam. te ñun dañ koy faj ba mu wér. Hmm. bu ko defee nag. waaw bu bu ko defee nag maanaam noonu lay mbirum rab mel. Hmm. rab nag dana dal nit koo xam ne day fekk jékki-jékki di say. say waaw nit kuy say jékki-jékki di daanu. Hmm. mbëkk boppam yooyu yëpp xeetu rab la. xeetu rab la loolu dañ koy faj. rab dana jàpp nit ba tee koo am doom. waaw. Mm-hmm. rab dana jàpp nit ba tee koo am doom mm-hmm. muy jigéen mm-hmm. wala muy ku góor ki bu dee ku jigéen ki daf koy faral di feeñoo góor gu muy seet lu bari su boobaa mandiwu mi nga xamante ni maanaam moo am solo mandiwu rab mandiwu nit ki ah, mandiwu mi nga xam ne moo am solo ci su ci la sama borom def ay ferñeent sabab ci bakkan man caa jaar waaw mën na koo nal ci yow ba jox la mu oyof tooy ah, waaw rab baa koy rab daf koy def bu baax ba yàlla ko may loolu mu xor loolu daf koy def waaw waaye nag yàlla lu mu mayee am na ay saafaraam waaw mën naa jàpp faralaat waaw ci kii bi lay ne ñëwal mën naa jàpp gone ba tee koo mën a wax mm-hmm. du tee koo mën a wax waaw xale yi mun mënta am xale yoo xam dañuy dem ba am ay at kii duñ mën a wax loolu lépp dañ koy faj ba mu wax ba xale bi di wax loolu kay liñ ci faj bari na ci am ci résultat bari na hmm. mbokk moo xamante ni dangay jàpp ne am na juróom benn at jàpp juróom yaar waaw nga xam ne weesu na fu muy waxee hmm. maanaam loolu rab daf koy def da koy def waaw euh, muuma am loolu ku ne xam na ko waaw xam ne yàlla téye aw làmmiñam hmm. loolu boo ko seetee di nga xam ne kii dafa mooma dëgg la wala kii rab moo ko jàpp bu dee rab moo ko jàpp bu soobee yàlla day wax bu baax a baax baax am na lu ñu koy liggéeyal boole kook maanaam meewum béy meewu béy ba nga xamante ni su ko jëfandikoo ci kattanug yàlla waaw lu wax wax moom da koy def bu dee mag la wala muy gone loolu lépp dañu koy def hmm. da koy def waaw nga xamante ni daal rab bu mën a doon da say hmm. wala da ngay fàtte wala da ngaa tëj sax yemul ci loolu donc de mën na laa tëj sax sa wàllu wërsëg hmm. waaw nga xam ne yow doo am dara ne la rat waaw loo yaakaar day tas waaw wala loo am mu dem wala nga dëkk di xuloog sa soxna waaw waaw loolu rab da koy def dëkk di xuloo ak sa soxna nii mhm. ma rab dina ko def nga xam ne saa yoo ñëwee ci kër gi rek waaw moom jàmmam jeex na wala saa yu la gisee yow sa jàmm jeex na mhm. ni mu lay dale au contraire noonu lay dale yooyu itam rab daf ko daf koy def doonte nag am na xeeti feebar yu koy def ndax yooyu yëpp am na gis nga fi mu toll nii estomac dong bu daloon bu la daloon bu daloon jigéen nii mhm. mën na koo jàpp ba nga xam ne su la gisatee du am jàmm oh. effectivement waaw waaye nag li ngay xamee ne feebar la ak rab la bu dee rab ñaareel kenn la koy xiir man mm-hmm. na koo xiir boroom këram saa su nekk wala mu xiir ko ay doomam bi juboo ak ay doomam mm-hmm. voilà d'accord léegi euh, li nga ñu laaj waa waa agsi parce que euh, bàyyi bàyyi ma laaj yi ba noppi parce que maay léegi sëñ bàcc <laughs> macha allah maay priorité léegi euh, li nga xam ne moom nga expliqué ci rab noonu am na solo léegi damaa bëgg bii passé nga xamante ni am na ñoo xamante ni bii ñëwoon nañ di faju ñooñu parce que tontoo ma ci loolu. biñ ñëwee ba pare lu ñu wax waaw. ñëpp ñu fay ñëw di faju rab. waaw am nañ satisfaction ndax nit ñi Sa Ndiogou kenn moomu leen. Mm-hmm. koo jëlub xaalisam. waaw dafa jëloo ko la mu doon faju mm-hmm. bu génnee léegi nga dégg ak audio mbaa nga ndax jamono surtout senegal gi ñu toll. Mm-hmm. nga xam ne lu nekk nga fi. waaw fee di weer bu nekk am na. waaw koo te gisul résultat da nga dégg ay kàddoom. donte. sunu borom subhaanahu wa taala kum dogalul ne war nga koo faj ba mu wér. waroo ko faj ba mu wér waaye li ngay def bu la leer ni dëgg la nga jaar ko fi nga ko war a jaar mm-hmm. bu soobee sunu borom maanaam danga nga ci am résultat yi nga bëgg jaajëf altine jii ñu génn bari nañ ay gan lool mm-hmm. ñoo xam ne dañoo ñëwoon ngir faju rab mm-hmm. ñoom ñëpp sama borom dogal na tàggoon nañ ak seen i rab alhamdulilah euh, loolu moom maa ngi la koy xamal ci bu façon bu mu mën doon nag waaw façon bu mën a doon laa wax ci wàllu rab. waaw loolu moom ci benn bis bi ko sëñ sëñ Baar daan faje waaw ñun ñi itam daka jekk bi sëñ bi nekk ñun ñoo koy faj. yéen a koy faj waaw boo gisee. waaw loolu ñoo koy faj euh, woon kii sëñ baa ngi woon ca mm. waaw moom mu nekk fi moom mu ñàkk fay nekk ndaka jekk ñun ñoo koy faj. aywa incha allahu rabi taala xam naa li mu wax ci rab moom ci côté douze moom. Assane dana ci mucc ndax Assane ab sangoom ak ab sël mu soreewul Assane buy dugg ci douche bi génn. xëy Assane. bu lay romb yàlla xam Assane bu la rombee dugg ci douche bi. loo doon def pour ànd ak moom gaawal. bàyyi Assane sama xarit la bàyyi jaar. <laughs> ci douche bi. Euh, waxtaan wi am na solo xam naa ni mbiru rab moom jàpp naa ni sax mën nga koo jàppal idda yeneen émission yu yaatu. parce que bari na lu ñuy jiñ rab. damay gis ay jigéen yuy euh, maanaam yàq seen bopp di wër di joxe seen bopp des fois ñu jiñ ko rab. Hmm. des fois gis ko soxnaam di njaaloo ñu ne rab da koy def. Hmm. des fois dama koy dégg ñu koy wax. Hmm. des nga gis góor guy fooyee boppam. Hmm. masturbation ñu ne rab da koy def. Hmm. ndax loolu yi ñuy jiiñ rab da koy faral di def wala rab du ko def bu dee rab da koy def ndax luñ mën a faj la. gis nga góor bu géntee di sëy xam nga gént di sëy moom boo mesuré boo mesuré rek message la bu la suñu borom di jox. njëlbeen gi mën naa bañ a nekk rab. lay ah. wan ne yow kat léegi maanaam mesure nga. góor bu nekk bu tolloo. bu soog a waaye su ko géntee def ko. mu ñëw ci xelam ñëw ci xolam. dem ci euh, euh, wanag wi wala mu wéet. waaw di fooye aw rab. waaw rab wàll si na fa. rab ñëw na. wàll si na fa. moo ko woo. Ah, bien moo ko waaw. ah ca wanag wa déedéet. maanaam soo. jéegub rab soo ko géntee. boo ko géntee. Mm-hmm. loolu maanaam dama laa wax ne la nit ki buy door a waaw mën na mën na koo gént. waaw mm-hmm. léegi nag su ko dee dikkal moom. Mm-hmm. Euh, ba mu jaral ko su wéetee. di foowee awraam. Mm. rab wàll si na fa. loola nag lu ñuy faj la. ba mu dañ ba nit ki dootu ko def. ba nit dootu ko def lu ñuy faj la ba mu dañ. ba nit ki dootu ko def. léegi nag son yu. Mm-hmm. wallu li nga da laaj laaj ba mu solo ci jigéen ñi nga xam ne ñaareel dañuy fooyee eh, dañuy joxe seen bopp jàpp ne mbirum rab la. waaw mën naa am sax loo xam ne mbirum rab la waaye am na ci loo xam ne bakkan la. Mm-hmm. waaye bu dee bakkan. nit ki nga xam ne dafa am soxna te soxnaam si mu leer ko ne amutuk maandu bay joxe boppam te mu bëgg koo aar danañ ko defal saafara càngat joo xam ne su ko sangoo am na ci loo xam ne ci kanamam la koy la koy raxasee moom ku góor ki ku ku góor ki ci kanamam la koy raxas su ko raxasee ci kanamam nag ànd ak soxnaam mm. aar na ko bépp góor gu ko tiimaat te du borom këram waaw bu cay sàkkaraam di di jaxasoog maanaam sàkkara soxnaam moom bisab keroog lay tële oh. bisab keroog lay tële mooy njaalokat ba mooy moom mooy tële njaalokat boobu moom day tële léegi nag mënees na koo dindi waaye ki koy dindi mooy ki ko defaroon loolu ki ko defaroon waaw mooy borom këram moo ko mën a dindi waaw waaw maa ngi maa ngi fàttaliku am na ci benn émission boo xam ne sëñ bi dafa tardé woon a ñëw waaw lu mel noonu da koo daloon nga xam ne ñoom ñaar moom moo mujj dem ba ci ndax bi mu xool ba fajoo fajoo fajoo mënta wér ñëw na ci soxna si wax ko soxna si ne ko may ma ab diir ma waxtaan ak sama borom kër ba mu waxtaanee ba borom këram ne ko képp ku jaxasoog yow ku dut man diramale ci ci sëy bi maanaam euh, dana ànd ko télé ba ko ko waxee la door a dem ca jàmbaar jooju wax ko moom mu dem ba ci borom këram euh, waxtaan ak moom tuubal ko saraxu ko def lu nekk nag giñ ne dana ko bàyyi mu door a ànd ak moom ba ci sëñ bi keroog lañ lañ lañ ko defaraloon hmm. loolu lañ ko joxaat mu raxasaat ci kanamam jox ko mu raxas ci awraam door a nekkaat góor ah, kon daal fi mu toll nii maanaam hmm. ki nga xam ne dafa nekk feneen beneen dëkk wóoluwut kiñ ko may parce que may nañ ko xale bu ndaw boo xamante ni bi amoon na far ci koñ beeg yooyu xelam dalut léegi moom bu ñëwee mën ngeen ko jox garab goo xam ne bii Euh, su ko raxasee ci awram bu sëyeeg soxnaam keneen ku ñëw kii maanaam farwa bu ñëwee Eh, day tële. bu wér góor gu ah, même bu faru ak góor gu a doon sécurité la de. ak góor gu mën a doon. sécurité la waaw ak góor gu mën a doon moom. il faut sécuriser kër parce que boo demee yenn kii ak yooyu. caabi be la caabi law be la. loolu sécurité dina amoo confiance. ah déet def parce que tey xam nga tey jii da ngay takk gelu jàmbur. Hmm. loolu day am de. takk gelu jàmbur waaj a bëgg a continuer ndaw sa. di ko jabaroo di ko jabaroo léegi kañ nga sécuriser ko. bu ko defee nga xam ne bii bu fookee ne ñëw na fa ba riis mbaas rek daal dee fay jaaree kii. xam nga booba yaa nga bitim réew dootoo raxas. xam nga yu mel noonu. ay fu muy raxas xam nga xam nga gis nga yu mel noonu. yu mel ma li nga wax nii. li damaa bëgg gars yi sécuriser. Mm. seen soxla ñu caabi law bi soxla waaw caabi law bi defee ñu bàyyi jabaru jàmbur yi parce que loolu dagan na ci jabaru jàmbur kuy dem ci jabaru jàmbur. war nañ laa def. ñëpp mais est-ce que dagan na itam. non jabaru jàmbur tamit rafetul sooy. jabaru jàmbur loo fay wut non non pour sécuriser ndaw si ëllëg maar day taali bu non non bu ëllëgee bu maar day taali bu dee waaja dafa sécuriser ndaw si nag léegi nag dem faatu waaw daa dem waaw non ah, ah, sooy mhm. ah. diirub sëy laa wax ah diirub sëy sëy laa wax waaw ah ndaw sànq bu mu sëy waaw xam nga li ñuy def ah waaw waaw ci alquran nga koy def xam naa waaw mm-hmm. alquran moom lu nekk da koo appal waaw wax ay sababam mm-hmm. borom këram bu faatu woon gàlla jotoñ na moom day dagg waaw mais li koy sécuriser soxna man nga koo sécuriser itam sa euh, doom Ah, sa doom sa doom moom. sa doom ci naka ganam la rek boo koy takkal. mais mais mais mais xaaral foofu noonu aussi yéen a dem te waru leen dem. waaw euh, da nga ni borom kër gi sécuriser soxnaam. soxna si mënul sécuriser boroom këram tamit. borom kër mën a am ñeent nga. non non non non non ah, mënoo sécuriser góor bi am na ñeent kenn mënu laa sécuriser. bëddi Sadio Sadio man damay laaj. waaw man damay laaj ñeent kenn mënu laa sécuriser. man damay laaj ku góor ki day am ñeenti soxna. waaw xaaral lew ñeenti soxna yi lew waxuma ko li may wax xam ngeen ko dama ni. Hmm. am ngeen droit am ñeenti soxna mais dama ni ni góor di sécuriser. soxnaam damay laaj saa njóogu hmm. ni góor di sécuriser hmm. soxnaam. góor jigéen mënu ko sécuriser borom kër damay laaj galanu xale yi damay laaj yéen ndax laaj bi dana te galanu xale yi galanu xale yi am na solo fi mu nekkoon galanu xale yi bàcc ci li ma galay ñuy takkal xale yi xam nga xam nga xam nga xam nga waykat bu dafa wax ne waaw muy sëñ Moussa Ka dane jigéen kenn mënu koo jubbanti ba mu jub da ngay cosaanam loo ko waar waarit bi jub wax na dëgg waaw. waaw sëñ Moussa Ka moo ko waaw sëñ Moussa Ka moo ci da ngay dingal. non damay laaj ndax sëñ Moussa Ka la. waaw sëñ Ndiogou bàyyi ma. moo tax sax dégg nga mu ne jigéen sax matut ab yónent. waaw waaw dëgg la. ndax ku jub te mat ndaw. mooy doon ab yonent te jub googu nekkul si jigéen. ah am na jigéen ñu ah, jub ah, non ah kay waaye xam nga buñ lay wax. majorité wi ma xam nga xam nga xam euh, nga. Euh, soxna Béti maanaam ñun ñi rek la ñuy waxal li ëpp li ëpp tax ñuy wax waaw gis nga sax fi mu toll nii boo doon def ay élection ñëpp duñ la wateel li ci ëpp ca la ñu wateel rek loolu ci galeen yi li may laaj noonu ci jigéen mënu sécuriser jëkkëram nag mënul nekk waa jigéen daal man naa aar boppam yaa ngi dégg nag waaye nag boroom këram moom hmm. sunu borom daf ko may moo mën a takk ñeenti soxna ñeent lu la leew la waaw léegi nag am na loo xamante ni ku ko def hmm. da nga koy bàyyi sunu borom rek bàkkaar la hmm. waaw léegi ñu ñëw ci galan yi galan yi. xale yi nga waaw xale yi nga ne mën nañ leen a sécuriser. waa xale yi euh, boo amee doom bu jigéen boo xamee ne hmm. euh, day jàng wala muy faral di jaxasoo ko góor hmm. mën nga koo sécuriser. sécuriser jigéen. ci naka mën nga ko wutal galan boo xam ne bu ko takkee ci ndigam. waaw góor du ko tiim di am di am di am kàttan. ah waaw kooku moom. maanaam bu ko tiimee nagam du ah sax xam nga sax boo xoolee tey jii. Hmm. ñun li ñu koy liggéey mooy xeetu euh, soccat. léeg-léeg nga gis jigéen ñoo xamante ni dañuy dañuy dañuy soccet ba góor gu leen tiim duñ mën ci ñoom dara secret bi nag foofu la jóge nga xam ne bu mu mën a doon du mën a am accès ci moom loolu nag ñi ngi ciy liggéey am ci ay résultats bari na ndax hmm. euh, suñu mbokki gambien yi nekk fu ci mel ni Angleterre wala Allemagne waaw ñooñu dañ ciy faral di ñuy yónnee lu bari nga xam ne dañ ñu ko ciy liggéeyal hmm. waaye wax dëgg yàlla ñu ngi ciy am ay résultat yu wóor a ndax loolu moo amul si xefa xefa la maanaam 30 secondes bu ci bu ci galant bi bu takkee bi ci 30 secondes jaaxasoo nag deretam jaxasoo na ak. dërët léegi bu ko dindee nag ah bu ko dindee nag 30 secondes dañ na. ah ko dindee bu dee nag léegi xale bi da koo xam nag léegi bu bëggee def kii teg. ah loolu moom moom la concerné. moo tax mag ñi buñ ko daan jox seen kii dañ naan ci rek cat la duñ leen ko leeralal. loolu ci loolu boo ko leeralee bu bëggee kii tekki ko. Mm. waaw waaw voilà mm. léegi kon sañ Baaj. Euh, kon léegi ñu ñëw ci euh, kiiw Cheikh Bara Ndiaye. Mm. Euh, Cheikh baara depuis lors fan la yëf yi toll keroog bi ñu leen gisee ngeen def point de presse beeg yooyu fan la yëf yi toll. waaw euh, ma jéglu rek joxewaale numéro rab yi. waaw nga xam ne képp koo xamee ne da ngay faju rab. wala nga soxla ci yi ñu fi waxtaanee yëpp ba ci eh, hémorroïde siti ngóora waa diabète tension estomac. Mm-hmm. bu mu ci mën a doon yooyu yëpp boo ko soxla mën ngaa woote ci. 610 81 81. waaw si 77 610 81 81 yaakaar naa sax numéro bi di ko faral di joxe. waaye numéro rab bi. Mhm. kii faju rab moom mën naa woote ci 77 353 50 50. numéro boobu daal 353 50 50. waaw mooy numéro rab bi. léegi nag yeneen numéro yi muy mel ni Mbour. wala tuubaa ñoom ñëpp ba ci Ziguinchor Thiès. am nañ ay numéro téléphone yoo xam ne ko fa nekk soxla garab yi ñu tudd mm. boo ca wootee bu soobee sunu borom des na la jox garab yi wax la ni ngi koy jëfandikoo incha allah euh, sëñ Sanjoogu euh, sëñ ñu ngi koy ñaanal mm-hmm. yàlla sama borom subhaanahu génn ko fa mu nekk amiin amiin ndax yàlla nee na su ngeen demee ba amuk jaaxle na ngeen ma jàmbat seeni mbir mm-hmm. moo gaaw ci saafara bi mooy saafara kon bi loolu kon ñoo ngi tàllal suñuy loxo sunu borom subhaanahu wa taala xam lépp tey gis lépp te dara du ko romb yàlla na ko yàlla génne fa mu nekk gisiwaat njabootam ndax moom kat euh, njaboot gi soxla na ko mm. mbokk yi soxla nañ ko kon ñoo koy ñaan yàlla mu ñëw ci jàmm ak salaam amiin amiin ñoo ngi rafetlu nag bépp kilifa diine goo xam ne dox nga ci mm. doxub jàmm ngir mu dellu siwaat ndax euh, sëriñ Mountakha Mbacké mm-hmm. ñu koy ñaanam mu yàgg fi te wér. Eh, yëg na ko bu baax fi mu toll. d'accord rafet nañ ne taxawaayam bi mu ci taxaw. Mm-hmm. rafet na lool dañu ngi am yaakaar ci moom. Eh, sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacké di sëriñu Cheikh Baara di xalifa xalifab Cheikh Sidil Muxtaar. Mm-hmm. jiite njabootu sëñ Baara gi yëpp. wax dëgg yàlla mbir mi eh, yëg na ko bu baax a baax te lépp loo xamee ne maanaam mi ngi koy dox. ngir sëñ baara génn noppalawul kum ci war a waxal mi ngi ciy wax ak moom ñi nga xam ne day dafa waral ñuy seq seenu tànk dem ba fa moom it def na ko ndax def na ko ci xalif yi nga xamante moo di sëñ Muntaxa Mbàkke soxna may Mbàkke mi nga xam ne mooy yaayi sëñ baara moom bërki démb rek la dem ci sëñ sëñ Muntaxa moom moo demal boppam yónniwut kenn ginnaaw ba fa magam ju tedd daja demee moom dafa delluwaat kon waxaat na ko mbir mi lu jiitu loolu it bokki sëñ baara yi nga xam ne ñoom la bokkal kër sañ daaru asan njaay di famille njare ñoom ñoo njëkkoon a dem ci sëñ muntaxaa kon mën naa la wax ne la juróomi yoon a ngi yoo xam ne kilifa yi moom dem nañ ci sëriñ muntaxaa pour ñaan ko seen doom ji nga xam ne dañ koo téye muy doomu tuubaat di sëñ baar ñu libéré ko ci jàmm ak salaam mm-hmm. waaye euh, bu yemoon foofu rek mu neex waaye dafa sax gën a jàllati mu gën a neexati ndax euh, sëriñ maahi ñas moom waaw Serigne Mahi Niass euh, waaw xalifatu Mawlana Cheikh Ibrahim mhm. yàlla na fi yàgg te wér Serigne Mahi mbir mi def na ci ay yitte lool def na ci taxawaay bu rafet lool mhm. ndax sëñ baara dafa nekk sëñ baaram ñëpp mhm. jaxasoog tarixa yëpp jaxasoog nit yi diine yëpp nga xam ne euh, loo seqoon ak sëñ baara boo demee ba gis ci moom catastrophe walla nga gis ci moom leneen lu ci mel ni lii lii lii ko dal tey muy mbiru yoon da nga yaakaar ne boo ko waxee sab sëriñ rek man na caa saafaroo mm. ba tax na ñooñu sëñ baara jaaxasol ñoo àgge sëñ maay mbir mi ba taxawaay bi rafet na lool te itam euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha si almaktoum moom itam yëmul rek ci wax ko ndax ku ne gis na image yi waaye lu mu ci man itam moom maa ngi koy def kon maa ngi seereel sénégalais yépp mm-hmm. ne kilifa diine yi ñoom addu nañ ci mbir mi addu nañ ci mbir mi kon nag ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal mm-hmm. nga xam ne yaakaar dong nga tax ku am lu la lu la lu la lu la lu la lu la dal wala natt dal la mm-hmm. da ngay dem ci e, ñi nga yaakaar ñooñu moom dem nañ ci ñoom te it ñooñu it yaakaar nañ ne te suñu suñu yaakaar ndax seen seeni taxawaay rafet na bu baax a baax a baax a kon nag ginnaaw dugal nañ ab e, liberté provisoire avocat bi dugal na ko yàlla na yàlla def ñu tontu ko ci tontin woo xam ne di tontin wu rafet rafet lay doon sama borom dogal na nag suba ak jàmm gan gi nga xam ne moo feeñ ci ginnaaw Cheikh Bara mu di tuur tànk boo xam ne soxna kati moo ko am suba ak jàmm. Ah. gis na ko tuddal. waaye tudd moo xam ne baay bi. tey teewu ko. Mm-hmm. mënta nekk comme na mu daan demee. ndax sëñ Baara teraanga dong la xamoon. Mm-hmm. masaana am gan dana ko teral ba àddina bi yëpp yëg ko. Mm-hmm. site internet yëpp partagé ko. waaye bii yoon nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ginnaawam. la ñun nijaay ja waxoon ba léegi dañ koy sàmm. waaw taxaw leen na ngeen war a taxawee taxawaay bi nag mooy. Euh, def ko ci ni ko euh, sunna diglee. waaw bu ko defee daanaka rek ku mën a teew mm-hmm. nga teewee tudd ma waaye bu ñu tuddee ba noppi itam yeewi nañ ñëpp mën a dellu ci yitte la mu war a àndal ci ay xeeti teraanga nag loolu moom bu soobee suñu borom te gan ngee ko indaale mm-hmm. loolu moom dinañ ko def kon ñoo ngi koy xamal ñëpp daal bu soobee yàlla subhaanahu wa taala jërëjëf sëñ Bàcc rafet na macha allah eh, waxtaan wi it am na solo waa di dellu rek di fàttali numéro téléphone bi di 77 610 81 81. 77 610 81 81. ni leen ko bàcc waxee nii la yëf ya demee boo fa demee macha allah gaa yaa ngay ñëw comme ni nga xam ne daa ñëw parce que ñoom ñi ñooy ñi nga xam ni bi fi sëñ Baara nekkee it ñoo yor liggéey ba sëñ Baara entreprise am bi du entreprise boo xamante ni bii. buñ nee directeur ba dem na rek ñu ne entreprise ba tëj na wala kenn mënatu fee def lii. Hmm. fexe na ba organiser. ñii nga xamante ni bii ñoom ñooy faj ñi xam nga ni bu mënoon na ñii mënoon nañoo ñëw ne rab yi ci ñaari fan lañ koy faj ndax Cheikh Bara nekkatu fi. Hmm. ndekete ñoom ñoo ko doon faj ci benn fan. Hmm. kon bu fi Cheikh Bara nekkul it ba tey noona lay demee. Hmm. rab yi ba léegi bisu altine bi la. waaw euh, bisu altine bi la waaye. waaw xam nga altine jiri ñëw. du dellusiwaat te tabaskiwuñu wuñu. waaw allah. kon may nañ clients yi nga xam ne. bu ñu wootee liste bi fees. Mm-hmm. ñoom dis na leen wax ñu ñëw ci mardi bi. waaw ndax mardi bi moom càngatu ubbeeku rek la woon. nga soxla càngat wala nga soxla jaaro lu mu ci mën a doon. ci mardi bi lañ koy def. Mm-hmm. waaye nag kon talaata ji. Mm-hmm. koo xamante ni woote nga ci altine ji te liste bi fees. ñoom dinañ la permettre nga mën a ñëw ci talaata ji. bu ko defee ci talaata ji ak jàmm ñu eh, defal la sa sangatu rab nga tàggoog moom. nga am jàmm sa julli neex si jàmm ak salaam. jërëjëf sëñ Bac macha allah. waaw kay léegi moom Euh, lépp lu jëm ci wàllum paj mi rek Tëngéej la waaye képp ko soxla garab te nekk Mbuur wooteel Mbuur Abota la fa nekk boo nekkee Thiès wooteel Thiès Assane moo fa nekk boo nekkee Touba wool Jiili Njaay moo nekk Touba boo nekkee Casamance wool Seex Seex Seex moo fa nekk xeetu garab yooyu moom jërul sax ñëw bu la neexee wooteel rek bu nekkee dakaar gi nga nekk itam wala Dakar li ko wër wooteel ci numéro bi ngay joxee boo ko defee bu soobee suñu borom foo mën a nekk di nga ñëw boo leen ñëw gënalee it boo ñëwee bu soobee yàlla ñu jox la garab yi incha allah mm-hmm. jërëjëf euh, di wax ni ajara euh, tëngéej la waaw ajjuma waaw tëngéej la ñu nekk samedi dimanche léegi bis yëpp ñoo ngi nekk tëngéej. waaw ah, leer na cité enseignant. Hmm. terminus su 48 bi. d'accord boo fa ñëwee rek boo laajtee kër sëñ Baara Ndiaye ah, ñu woon kër. incha allah wetu kër ko. yaa ngi yaa ngi yaa ngi tooñ ku mën a tontu. <laughs> joxe numéro bi numéro bi ngay ah, joxe daa ko trop joxe nga quatre fois. Euh, quatre fois <laughs> d' accord mi ngi noonu yaa ngi tooñ ku mën a tontu ba fekk la fi <laughs> ñu koy nuyu bu baax a baax moom Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di euh, la jaajafal yow mi ko wut mate nga sa place vraiment ça se voit que ni ànd ngeen ak moom te jàmbaar ngeen gis nga yéen a ngi assuré liggéey bi noonu la rek di nuyu soxnakat yi ak tout tànk baak ñoom sëñ si dégg ñëpp toute la famille ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax ñu ànd ak yi ñëwaat.